بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ينتدو الهاجي شيخ جا أم 15 دي جانجي تي مركز الهاجي شيخ جا كومين دو توبا ريجان دي جربال ورا دم تيولي سنغال تي كونكورو دوباي بي أم تبير كورجي ورا كومانسي لدو بيرنيو إن شاء الله ñu leen di jox rendez-vous di wax ne yéen askanu Sénégal yi ñu ngi leen di tàggu tey sàkku seen ñaan di sàkku ngeen ñaanal ñu ndam li ñëw fii nii ba doon ndamul lislaam ak ndamul alquran ak képp koo xam ne day safoo alquran di lancer appel tamit képp koo xam ne bëgg nga alquran da koy safoo ngay jàppale si site yi mel ni la maison du coran au Sénégal di baytu baytul quran fi Sénégal ba ñu gën a mën a jàpp ci liggéey bi ngir tasaare alkuraan ak yaatal ko di dem ci concours international di topp candidat yi di di leen topp di xam ci lan lañ nekk di leen gunge ci avant concours bi ak pendant concours bi ak après concours bi إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا